mbokki jullit yi mbokki taalibe yi kuréel liggéeyal ku tedd ki di kuréel guy liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba ci jàng ak jàngale lépp lu jëm ci wàllum xam-xam ci anam yu wuute ñoo am mbégte dina leen yëgal ak a woo ak fàttali benn ci événement yi ñuy amal muy rabiu safar di ñeenti fan ci weexu safar ñu koy waajalee màggal Tuubaa gu mag yi war a dëppook altine le 21 août 2023 ñu koy amalee ci bâchu Hizbut Tarqiyyah bi nekk ci buntu kër Cheikh Mouhamad Fadel Mbàkke jàkkaarloog jumaa ju mag ji bis bi ñu ciy amal ay jongante ak sargal jongante bu njëkk bi muy Moussa Diala di tari xasida ñaareelu jongante bi di daaju mag ñi ñu jël ci ay tuutànk ànd ak ñoom daaju mag ñi ren gi ñu tànn ci daaju sëriñ alhaaji Cissé ñetteelu jongante bi di xifsul mutoon di mokkal téere sëriñ Tuubaa yi jëm ci wàllum xam-xam ren ji ñu tànn ci masaalikul jinaan bis bi daañu ci sargal benn daayira ren gi ñu tànn ci daara isbu tarxiya sargalaale benn jàmbaar ñu tànn ci sëriñ Demba Fay di jàngalekatu xam-xam waaye di ci fàttaliku sëriñ Abdourahmane Mbàkke kuréel liggéeyal ku tedd ki di ci woo mbokki jullit yëpp mbokki taalibe yi bàyyiwul kenn di ci woo mbooleem daayira yi ñeenti fan ci weeru safar lay doon yemook altine le 21 août 2023 ci buntu kër Cheikh Mohamed Fadel Mbacke ci bâchu Hizbut Tarqiyyah bi 15 di 3 ci bëccëg la tàmbali mise en place bi 19 ñaan ñëpp yeeweeku di ñaan képp ku ci ñëw mu sàmmonteeg mbooleem li sëriñ bi tere ci dëkk bu sell bii di Touba képp ku ci bëgg ay leeral mën na woote ci numéro bi di 77 liggéeyal ku tedd ki ñooy ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacke xalif général des Mourides mu yàgg fi lool te ànd ak wéer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 di ci waajal bis bu màgg bis bu rëy bisub lislaam muy bis bi nga xam ne Mawlana Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu wa arda ci la génnoon dem liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy bis boobu nga xam ne moo siiw ba ñu koy woowee màggalu Tuubaa nuyoo yooyu ak siyaar yooyu nag ñu koy tàmbalee ci Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér suñu borom dolli ko kàttan dolli ko wér dolli ko tawféex ak xéwal di sant bu baax kuréel gi nga xam ne. ñooy kuréel liggéeyal ku tedd ki di ay jullit di ay taalibe ñu jóg euh, am pas-pas ak yëg-yëgu ne war nañoo liggéeyal sëriñ bi seen kem kàttan ci xam-xam ci njàngaleem sëriñ bi euh, ñu def ci yu am solo bi ñu jógee ak léegi yoo xam ne ñëpp a ngi koy rafetlu ñu ngi ñaanal suñu borom mu fay leen yow bari tomb bi nga xam ne moom lañu jël ren di ko waxtaane muy tomb bu am solo boo xam ne Euh, jullit bu ne war na koo xam waaye ñun ñi nga xam ne ñooy waa sëriñ bi it euh, ginnaaw bi ñu bokkee ak mboolem tasawuf amaan nañ ci suñu cëru bopp koo xam ne jaadu na ñu xam ko jàpp ko euh, te yittewoo ko ngir suñu aju ci sëriñ bi gën a wér gën a dëgër gën a gën a set tomb boobu di tomb jaayante jaayante di lu am solo am na solo ci lislaam am na solo ci yoonu tasawuf ahlu tasawuf ñoom ñoom ñëpp bokk nañ ci li leen ràññee mooy jaayante lu mënta ñàkk ci ñoom la ak fu mën a féete euh, jaayante nag muy mu baayaa wala neneen noo ko mën a tuddee wala jébbalu wala noo ko mën a tuddee rek loolu euh, ci gàttal rek xamle bi mooy ab pacte contrat bi nga xam ne mooy dox diggante taalibe bi sëriñ bi nga xam ne moom la jël def ko muy kilifaam ci diine jox def ko muy ki dox digganteem ak boromam ci digal muy def di ko tere muy ba ci loolu lépp tege ci eh, li nga xam ne muy njàngaleem lislaam di siraatu mustaqim muy kon lu am solo lool eh, loolu kon mooy xam lépp jaayante mu doon loo xam ne it lu am cosaan la ci diine du lu ñu sos du lu yees du loo xam ne fii rek lañ ko xamee waaye ci biir lislaam ci bopp jaayante dafa doon loo xam ne da ci am cosaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jullit ñi dañ doon jaayante ñoom dañ doon jaayante ak moom laqad radiyallahu anil muminina is yubaayi'unaka taxta shajara inna allazina yubaayi'unaka innama yubaayi'una allah kon xam nañu ci histoire l'islam ci biir alxuraan ci njàngaleem sunna ci ñu nett li jàngale ci ñi nett li jaar-jaar l'islam ay yoon yu bari ay barab yu bari yoo xam ne jullit ñi daan nañ jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy góor ñi ak jigéen ñi kon loolu lu am cosaan la ci diine bi mu fi jógee moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it ñi ko fi wuutu xulafaa rashidun ku ci nekk jullit ñi dañ doon jaayante ak yow wax nañ ne kat ñu ngi signé ak nañ la def nañ la suñ kilifa boo diglee danañ def boo tere danañ ba te ñoom daawuñ digle lu dul yàlla digle daawuñ tere lu dul doo nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala euh, moom la moom la tere kon loolu di wane ne lu am wàccuwaay la ci lislaam bu ñu ñëwee nag ci fii ñu nekk ci ahlu tasawuf ni ma ko waxee woon dafa bokk ci li ñu leen ràññee ñoom ñëpp mooy jaayante nit ki ñëw bëgg a dugg ci benn tariixa faw mu jaayante faw mu jébbalu faaw mu signé pacte boobu bu koy dugal ci biir ngir wane ne kat bis ñi ki tey nangu naa ne règlement intérieur bi fi ne ci biir ci gàttal ci prix mu gën a leer daal règlement intérieur bii fi ci biir muy yi ñu war a def ak yi ñu war a tere dinaa ko respecté lu ñu ma wax dinaa ko def lu ñu ma tere dinaa ko baax euh, kon loolu rek la joxe kilifteef la joxe kilifteef goo xam ne nit ki mooy mooy ñëwal boppam lu lu lu lu muy tànnal boppam lay doon daal volontairement lay ñëw kenn du ko forcer euh, kon lu am wàccuwaay la ci biir ahlu tasawuf bu ñu ñëwee fii ci cheikhul xadim radiallahu anhu wa arda nga xam ne tasawuf moom loo ciy war natt ko ci sëriñ bi rek boo gisee mu di ko def xamal ne wér su ko defut moytandiku ko te xam ne mbir nga ci biir moom ci boppam bi mu ñëwee fekk ay waajuram yu nekk ci tarixal xaadiriya mu ne ca góorgóorlu ca def ca kem kàttanam ba suñu borom beral ko mbirum mbirum boppam mu xam ne amatul ci kenn ku mu war a aju ko dul yonente bi keroog bi muy aju ci moom dafa jaayante ak yonent bi dafa jébbalu ci moom dafa jël mbiram jébbal ko donte mbiram mës a jóge ci loxo muy ci atum 1311 ci Touba gi ñu nekk fi la ko defee xam ne at moomu sax siiw ñu koy woowee atum jaayante ma mm, atum jébbalu ma muy amul mu baayaa wax ci ay wax yu bari euh, ubaayon al yowma rasul al mustafa bi xidmatin wa asalullah al wafa ne tey jii kat maa ngi maa ngi maa ngi jaayante ne euh, maa ngi jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam te fas naa yéene Euh, sàmm loolu ma jaayanteeg moom euh, te maa ngi ñaan suñu borom mu dimbala ma ci kon loolu di wane ne euh, fonkoon na ko loolu bàyyaatu xeelal wara billaahi wal xalami li wajhi rabbil wara zillaahi wal xalami bàyyaatu rabbal wara billawxi wal xalami li wajhi rabbil wara zillawxi wal xalami ne ngeen gi yonent bi muy xeelal wara maa ngi jaayanteeg moom tey ci ci jàng ak jàngale ci tàgg ko ci julli ci moom ci liggéeyal ko ci xeetam bi loolu nag maa ngi koy def ngir kenn rek mooy borom bindeef yi kon ki gën ci bindeef yi maa ngi jaayante ak moom ngir jëmmi borom bindeef yi mu suñu borom muy bàyyi bàyyaatu xayral wara billawxi wal xalami li wajhi rabbil wara zil lawxi wal xalami ma nga xam ne mooy borom aliwa mahfuz mooy borom xalima nga xam ne lu mu ca bind mu wéy lu mu ca bind dootu wéy kon loolu di wane ne rek euh, moom sëriñ bi moom ci boppam moo njëkk a jébbalu ci ab sëriñam muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu toppoon ci moom it moom sëriñ bi ku ñëwoon ci moom li lay dugal ci mbir mi li ngay njëkk def mooy jébbalu ci moom moo tax ngay gis ñu naan suñu Adama Gueye njëkk a jébbalu kii ci topp kii ci topp kii ci topp ñooñu dañoo ñëw jaayante moom ci bis bu mbootee mbir mi mooy bi mu Mbàkke Kajoor bi suñu wàllu seli jógee muy jàngale lu matum at léegi léeg mu junj na leen kat lii de baax na lool lii may def doomi soxna su dem ba jàng ba ba koo xam ne doomi soxna nga jàng ba ba téere bu ñu la indi koo jàngale am na solo waaye am na lu ko ëpp solo buñ ko nee lan la mu ne leen lay tax daal nit mën a am ba law xool xalam googu ma tuddoon léegi ne la aloy mahfuz nga xam ne suñ borom ci la bind lépp lay tax jullit bi mën a am luñ ca bind buñ ko bind mu di ko dégg xiit xiijit karima mu di ko mën a dégg la koy may loola loolu moo gën lii eh, di leen junj kon rek leneen loo xam ne ne leen li ñu ne baax na waaye am na leneen lu ko ëpp solo boobu mi ngi leen di waajal rek ngir bu woote bi ñëwee ñu xam ne kon am na leneen lu fi ne ba ni mu xëyee nag li suñ Basiru di wax ne xataa fuja bi am min aal wala bi amrin aal ñu ñu ñu ndigal jóge ko ca kaw nag ne ko rabbi asxaabaka bil na nga woote gaañi nag keroog bi mu lay woote nag ci la jaayante xew ci mbiram mu xëy dajale leen nag ne képp koo xam ne jàng rek rek moo ko fi indi woon yeewi naa ko mën naa dem wuti feneen fu mu jàngee am na nag leneen lu muy wut man lu gën a kawe njàng képp koo xam ne nag jaral na la képp koo xam ne bëgg nga ñëwal ñu dem bi mu ko waxee it da daa daal di wéy gëstuwut ku ñëw ñëw nga ku ñëwut tamit moom dem na ci noonu nag lim bu néew ba fa nekkoon ñoo ñëw jaayante ak moom ca la yoonu mu déparé ba tey jii ñuy wax kon ca bis booba rek mu wax loolu ca la jaayante njëkk amee moom sëriñ bi ci ay jëflanteem ak taalibe yi di nga ci xamee ne eh, wane na ci ay barab yu wuute na jaayante mënta ñàkk wax nañ ne toll na jenn jamono mu dajale ñenn ci ak njaboot ku ko jege sëñ Masamba rakkam sëñ Mor Roxoy Buso di ab jarbaatam di doom ci moom it sëñ Modou Moustapha mi ab taawam ak sëñ Fallou mi ci topp ñoom ñaar ñi nga xam ne ñoo nekk nekk ay xalifaam ne leen kat duma yi kenn muy sëñ Mor Roxoy Buso du ma magi kenn muy sëñ Masamba du ma bàyyi kenn muy sëñ Fallou ak sëñ Manoune Soix ne leen li ne fii ci man li koy tax a maye mooy li ciy tax a jot mooy jaayante ak ak ak liggéey rek xidma maanaam jaayante te respecté li nga jaayante rek ci gàttal bu ñu ko mënee firi mu gën a jege. kon wan leen kon ay mbokkam lañ waaye Cheikh Ahmadou Bamba mooy seen mbokk waaye Cheikhul Khadim mi nga xam ne moom la fi suñu borom indi moom li mu fi indi jaayante soobu ci yoon wi ne moo koy maye. kon da leen ko wax ñoom waaye ñëpp la ko doon wax ci njaboot gi ñu daal di sóobu ñoom it daal di yeesal seenu njëbbal daal di jaayantewaat sóobu moo tax gis nga sax Sëñ Fallu def na ci ay bayit ba ne ko moom jébbalu na euh, jébbal na ko léppam euh, jébbal gi nag mooy njureel gi mu ko juróon jaay na ko ko bis ni ko tey jëndee ko ak taalibe ne ko su ko jëndee ba noppi nag am na njëggum ko ci war a fayee li mu ci war a fayee jox naa la ko addiya mu yaa yoo cheikhuna fisul murtaja yaa fatihan ma xablu kaana kaana murtaja bi'tu bunuwwatiya bil iraada lakum kal ahzaabi xalqil aada min ba'di ma sharaytumuuha minni ahdaytuha lakum bi ghayri man ni ba bay da jeex ne ko kat jaay naa la njuréel gi jëndee ko ak taal bi soo ko soo ko jëndee ba nopp jéggi ma war a fay joxaat naa la ko addiya kon loolu wane na ne euh, ndegam sëñ Fallou mii doom ci moom mook sëñ mook sëñ Modou Moussa sëñ Massamba mii rakkam sëñ Mor Roxay mi jarbaatam di doomam ndegam ñoom ñooñ ci boppam lañ leen wax ne leen jébbalu jaayante jëfe mënta ñàkk mu wane ne keneen ku fi ñëwaatit mënoo leen a gën a bokk ak sëriñ bi ci ci mbokk kon te ñoom it ci yoon wi juddoo ñoom ñooñ may wax ñëpp ñoom ñooñ ñëpp bi ñuy bi ñuy ñëw feeñ jamono fekk nañ moom sëñ yoon bi sëñ Massamba ngay wax ne moo xaw a maaseeg yoon yi tuuti te rek la ci sëriñ bi sëñ bay léppam mooy waajuram mooy léppam ñu génn ci loolu waaye da leen wax na leen ñoom ñëpp faaw ñu jaayante ñoom it ñu daal di jaayante waat soobu ni nga xam ne ni la ko ni la ko ñëpp defee kon loolu dina wane ne jaayante Euh, lu munta ñàkk ci yoon wi ñu nekk la ni nga xam ne munta ñàkk ci bu yooni tasawuf yëpp nit ku bëgg a dugg ci tarixa sax moo ko cay dugal juddoo ci tarixeet kon euh, du tee nga ñëw yeesalaat ndax am na ci njaboot gi sax ñoo xam ne sëriñ bi euh, digalaat na ko ba ci jamono jëm nekk njaareem ñu def ko kon loolu lépp di wane ne jaayante daal lu munta ñàkk ci biir yoon wi la sëñ bi xam nga soññe ne ba tàyyi ci loolu ñu xam ne jaayante gi it jël sa kilifteef jébbal ko kenn la maanaam tarixa bi di yoonu murit ñëpp benn sëriñ lañ am muy cheikhul xadim radiallahu anhu wa arda waaye nag nañ ay jëwriñ ci biir kon loolu lu mun mënta ñàkk la bul nekk muritu mbooloo mi noonu rek murit boo xam ne tey bu fi jigoon du buñ ne kuy kilifaam kenn du ko xam wutal koy doxale sa diggante ak sëriñ bi ci mu lay digal ngay def mu lay tere ngay ba nga jaayanteeg sëñ Tuubaa teg ko ci loxoom ndax fekkoo fi sëñ bi moo ko fi fekk ndax euh, gis ngeen sëñ bi waman araadal xur waman araadal xurba min rabbil wara fal yatluban euh, fal yatluban cheykhan wa yatlu suwara wa man araada al xurba min rabbil wara fal yatluban shaykhan wa yatlu suwara képp ku bëgg a àgg ci suñu borom képp ku bëgg jege suñu borom na wutub sëriñ te jàpp alxuraan waaw loolu nag kon euh, sëriñ bi soññee na ci bi ba tàyyi ci ci ci loolu ndax am na feneen fu mu waxee sax ne li tax amub sëriñ bu mat sëriñ mënta ñàkk mooy ku amul sëriñ seytaan nekk sëriñam li anna man adima shaykhan murshida fa shaykhuhu shaytaanu xaysu xasada képp koo xam ne amoo sëriñ euh, na nga xam ne seytaan mooy si sëriñ daal di wax ni ñi tànnee ab sëriñ ba ne sax euh, wa man taallaqa euh, fa man taallaqa bi waasilin wasal euh, wa man taallaqa bi aksihin fasal képp ku jokk ci ku àgg ci suñu borom mu àggale la ku jokk ci ci ku ci ku àggut <laughs> doo mën a àgg mukk maanaam poste courant bi maanaam sa installation kër ci courant lu mu baax baax bu ñu la branché wut ci contrôle bi la yóbbu ca centrale ba lu lu lu électricien bi ay ay mënoo am courant moo tax kon critères yooyu mu wax ne noonu la ñuy tànnal sëriñ it lu mënta ñàkk la li ci am solo rek mooy ñu xam ne daal jaayante lu mënta ñàkk yoonu murit la euh, taalibe bu ne rek na xolaat boppam ku ko defoon fam jaayante na fa gën a jàpp te xam ne kër yëpp suñ Tuubaa lañ fay wër te kër yëpp Sëñ Tuubaa fa nekk nag euh, boo xàccee ci kër gi dem ci kër gee na nga xam ne Sëñ Tuubaa mi nga ba fii moom ngay fekk fee ku rek fa nga ne jàppal ne sëriñ bi moo fi yebal ngir nga nekkal ko fi ñu xam ne euh, Sëñ Tuubaa ay xéewalam weesu na foofu waaye ne rek tey tey tey jëf te yàlla rek tax suñu borom dina la xet li ci barkeb Cheikhul Khadim muy nag lu am solo lu mat a jàpp ndax am na ñaari njariñ moom jaayante am na jaay am na njëriñ ci wàllu ruux ndax faaw nga am ku la àggale koo xam ne moo lay gën a miin yoon wi boo waree def nii mën a defal nii soo waree yokk mën la yokk soo waree wàññi mën la wàññi loolu mënta ñàkk la ci wàllu doxiinu doxinu murit bi nga xam ne dafa soobu diggante ak boromam wet googu jaayante da cee am solo am geneen njariñ gum amaat nag goo xam ne ci wàllu social ci wàllu organisation ci wàllu politique ci wàllu doxalin ndax ku nga xam ne ne jaayante mooy takkaan mbooloo mi ñu def benn benn say te yoon murit dafa bokk ci seen i particularité seen force nekk gi ñu benn tey bu waa njenne bu sëriñum njenne bu ne na waa njenne gépp ñëw ñëpp daje loolu li leen ko mooy jaayante gi ñu jaayante waa waaka Cheikh Issa ni ñu jaayante nekk benn su ko Daaru Salaam defee noonu la su ko Daaru Moxti defee noonu la su ko feneen defee noonu la sëñ Muntaxa mi yilif yoon wépp bu nee bismillah ñëpp daje loolu li ko maye mooy jaayante gi ñu jaayante ci ne euh, luñ ne waaw ñu def lu ñu ne déet danañ ko sori loolu nag dafa bokk ci ci ci pilier ci ci ci ci euh, ci ci ci levier yi nga xam ne moom lañ mën a utiliser ngir sàmm ko jaayante jaayante daa bokk ci li gën a mën a takk mbooloo mi bañ nekk benn te ku ne xam ne loolu bokk na ci li nga xam ne mooy doole yoon wi ba tey jii euh, nga xam ne bi fi sëriñ bi jógee sose yoon wi ak léegi euh, bi mu sosé dëkk bi ak léegi fi yoon wi àgg ci tasaaroo fi fi dëkk bi àgg ci yaatu lu leen ko may mooy nekk gi ñu nekk benn moo leen may ñu tabax jumaay njaareem moo leen may ñu indi bi Touba moo leen may ñu tabax jumaay Touba moo tax ñu tabax Masaalikul Jinaan moo tax université Serigne Mountakha bi àgg ñu ñaan suñu borom gën ko fa yàggal li ko wér a kàttan kon nañ xam ne jaayante lu mënta ñàkk ci ab murit la murit bu ne bu fekkoon lii mu fekk bu dee lii ñuy fekkoon na mu jaayante na gën a jàpp fa mu nekkoon su ko fekkutoon ne na xam ne weesoogu na dem yeeslu rek jaayante te xam ne lu mënta ñàkk la ñu sant bu baax waa kuréel bi nga xam ne ñoo indiwaat tomb bi mu lu am solo loo xam ne rek eh, ñëpp danañ ci jariñu ñi ko xamoon danañ ko xamaat ñu fàttaliku ci ñi ko xamutoon ne danañ ci jàngi ñu suñ suñu borom defal ñu xewal defal ñu def ñu ay taalibe yoo xam ne seenu taalibe sëriñ bi da koy nangu ci biir ak biti eh, te suñu borom dolli ñoo fayal sëriñ bi dolli ko xewal dolli ko tawfeex dolli ko ngërëm dolli koy may ak xewal ak tawfeex te yàggal fi Cheikh Mouhamadou Mountakha asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi kuréel liggéeyal ku tedd ki di kuréel guy liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba ci jàng ak jàngale lépp lu jëm ci wàllum xam-xam ci anam yu wuute ñoo am mbégte di leen yëgal ak a woo ak fàttali benn ci événement yi ñuy amal muy rabion safar di ñeenti fan ci weexu safar ñu koy waajalee màggal Tuubaa gu mag gi war a dëppook altine le 21 août 2023 ñu koy amalee ci bâchu Hizbut Tarqiyyah bi nekk ci buntu kër Cheikh Mouhamad Fadel Mbàkke jàkkaarloog jumaa ju mag ji bis bi ñu ciy amal ay jongante ak sargal jongante bu njëkk bi muy Moussa Diala di tari xasida ñaareelu jongante bi di daaju mag ñi ñu jël ci ay tu tuutànk ànd ak ñoom daaju mag ñi ren gi ñu tànn ci daaju sëriñ alhaaji Cissé ñetteelu jongante bi di xifsul mutoon di mokkal téere sëriñ Tuubaa yi jëm ci wàllum xam-xam ren ji ñu tànn ci masaalikul jinaan bis bi daañu ci sargal benn daayira ren gi ñu tànn ci daara isbu tarxiya sargalaale benn jàmbaar ñu tànn ci sëriñ Demba Fay di jàngalekatu xam-xam waaye di ci fàttaliku sëriñ Abdourahmane Mbàkke kuréel liggéeyal ku tedd ki di ci woo mbokki jullit yëpp mbokki taalibe yi bàyyiwul kenn di ci woo mbooleem daayira yi ñeenti fan ci weeru safar lay doon dëppook altine le 21 août 2023 ci buntu kër Cheikh Mohamed Fadel Mbacke ci bâchu Hizbut Tarqiyyah bi 15 di 3 ci bëccëg la tàmbali mise en place bi 19 ñaan ñëpp yeeweeku di ñaan képp ku ci ñëw mu sàmmonteeg mbooleem li sëriñ bi tere ci dëkk bu sell bii di Touba képp ku ci bëgg ay leeral mën na woote ci numéro bi di 77 liggéeyal ku tedd ki ñooy ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacke xalif général des Mourides mu yàgg fi lool te ànd ak wéer أنت التي في رهبان